Euh, fichier physique gu parrainage bi di xool. Mhm. non. c'est ça dix pièces la. oui dix pièces la. seet lu ci manque lu ci manqué. déclaration ouais. Mhm. de candidature la. Mhm. plus les neuf pièces ouais, du dossier. nga xool ko rapidement. c'est ça est-ce que am na quittance. c'est euh, ça par. dès que euh, am benn bu manqué rek ñu ne la automatiquement. oui mëtle wu on est désolé. c'est très simple mais nga jël ñëpp boole leen ci tirage après ne après dama leen di oo benn par benn c'est une perte de temps et d'énergie ah parce que ñi ne foofu au conseil constitutionnel on les paye à l'heure c'est le salaire de c'est le c'est c'est temps dañ ko war a utiliser de façon efficiente efficiente oui alors conseil constitutionnel lañ tiré mais ni ma la cour suprême tamit très rapidement ñu ñu considérer acte bi mu génne concernant clamé bi ñu clamé woon ne Sénat euh, bi président de la République de wala euh, récemment attaqué décret bi eh bien Euh, daq nañ daq nañ euh, maanaam requête bi euh, recours bi xaw ma naka lañ koy woowee requête bi eh bien parce que même si waa fit yi hmm. désisté woon nañ eh bien Ndiaga Sylla ak Abdoulaye Tine su ma juumul ñoom dañu continuer woon topp mbir mi et d'ailleurs si la tweeté na hmm. pour diir Euh, on sent un peu métitam en dix hmm. disant que oui combat bi ñoo ko tàmbali woon mais ñu dem ba ci digg bi intérêt yi xaw a changé ngeen bàyyi ñu ci ñun kese ñu xaw cee wéet boobu tamit noo ko jàngatee. bon euh, la position des gars du FIT bi ma gisee argument yi deux des membres joxe maanaam le processus électoral bëgguñu mu bloqué. Mhm. je pense que c'est tendancieux. Mmh. c'est tendancieux taxawul. Mmh. parce que. contrairement à ce que ah, certaines ah, personnes ont dit dañuy bañ. bu bu conseil bi. annuler décret bi voilà. que ñu reporter élection présidentielle. yaa kenn gis nga en matière de droit. Mhm. nit ku la waxal ba pare. Mhm. te nelawul vu ce mhm. texte mhm. waxul dara pour yow amul texte amul benn texte buy montrer mhm. dans le code électoral que le l'annulation de ce décret pour reprendre un nouveau décret peut provoquer euh, le report ou l'arrêt du processus électoral mm. Maintenant, pour revenir à la décision de la Cour mm. suprême de, de rejeter, de rejeter le recours, je ne sais pas si c'est fondé ou pas. mais en tout cas mon sentiment mhm. est que on est en matière électorale mhm. ils disent que ils n'ont pas intérêt à à requérir mhm. mais qui a plus intérêt à requérir qu'un électeur dans le code électoral on te dit que tout électeur peut demander la radiation d'un autre électeur tout électeur peut demander la l'inscription d'un autre électeur donc yow l'électeur tu es au centre du processus électoral et la Cour suprême ñoom dañ war a parce que ñoom rek ñoo mun a décider. Mhm. dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce cadre là s'ils sont seuls à devoir décider dañ war a décider. Mhm. et mënuñu mu mënuñu wax ne que un citoyen inscrit sur le fichier électoral ne peut pas contester le mhm. processus. ils ne peuvent pas le dire. ça vraiment pour moi je suis absolument d'accord avec Ndiaga Sylla quand il dit que lui en tant que citoyen électeur. il a intérêt à requérir. Mhm. alors euh, au plan politique euh, li ñu desee bëriwul booy jàngat taxawaayu président Macky Sall effectivement bokkul ci jongante bi ak yëpp mais ban impact la mën a am ci ci jongante bi ñu jëm présidentielle bi. alors je j'entends beaucoup de gens dire que c'est extraordinaire que pour une première fois Sénégal ñuy dem élection président bi génn bokkul ci élection yi. Mhm. ma ne leen bu ñu xoolee bu baax. Mhm. nekkul candidat mais. mën na ci mel na ni mel na ni. ci élection yi la bokk mel na ni sax euh, dafa nar a nekk directeur de campagne. parce que benn boo seetloo boo seetloo discours am. Mhm. discours discours am 31 décembre. dafa def discours bilan ba pare relancer wane ne que mu mu mhm. daf fi nekkaat. Mhm. boo ko xoolee taxawaayam ci langue gi. barki Dembo Ndiaye euh, arrosé na maire yi. jox euh, digle ne dina yokk seen salaire. digle ne dina leen jox oto. dig leen ne dina leen jox passeport diplomatique dig leen ne dina leen jox couverture maladie. Mm. donc yooyu dafay wane ne que ensuite ñuy wax ne ñu ngi commencer enrôler diaspora bi sur les cent mille logements yooyu yëpp daf lay wane président de la république parewul pour dem bi ma gis nii. Mm. en lan mooy parewul pour dem. pour parewul pour parewul pour dem mooy que ne il va encore avoir la main mm. aux commandes. mais pourtant il l'avait dit tamit ne jusqu'au jour jusqu'au 2 avril. non jusqu'au il aura exactement il va exercer la plénitude de la fonction. jusqu'au avril il sera président de la République. mais il ne devra plus être président de la République li ragal. Mhm. mooy que ñu am un président de la République bis su fekkee ne candidat am dafa gagné. merci beaucoup euh, Théodore Monteil bëggoon nañ euh, gën a xuusaat mais sous la pression de Pierre Da Silva comme d'habitude <laughs> on va rendre l'antenne